dañuy bàyyi jëwriñ mu tàbbeek ñun ci bunt boobu ñu xam lan mooy cosaanal tabaski ba noppi soog a tàbbi ci biir waxtaan wi jëwriñ waaw Yaxya ñoo ngi siyaar bu wér di euh, ñu koy waxee saa su ne rek di nuyu mbokk taalibe yëpp di wax ni tabaski de sunu borom la muy dugg ci aj mm-hmm. aj nekk juróomeelu ponk lislaam mm-hmm. képp koo xamante ni yàlla dimbali na la ba nga dem maak siyaare ji yonent bi sallallahu alayhi uh, ji woote yàlla bi mm-hmm. war nga faa rey gàtt mm-hmm. gàtt woowu nag cosaan bi mi ngi bàyyeekoo ci maam Ibrahima mm-hmm. maam Ibrahima bi nga xamante ne yàlla da ko tegoon nattu natt bu metti da ko doon natt natt bu metti dëgg la mu wëlbatiku jaayante bi mu jaayante ak boroomam ak dëggu gi mu dëggu ak boroomam mhm. natt woowee mu muñ ko mhm. bu paree defee ko ni ko yàlla bëggee woon dëgg la mhm. xam ne ni nit li mu gën a bëgg ci kaw suuf mooy doom dëgg la te yàlla mbëggeel moo tax mu sàkk dëgg la eh, yàlla ba mu bëgg bëgguñu moo tax mu sàkk allah mu nekk lu nga xamante ni mbëggeel ci xol lay nekk mm-hmm. mu mel ni tey ji xol leneen loo fa dugal lu dul yàlla mm. bokkaale day dugg bokkaale dugg na dëgg la mm-hmm. kon dafa sew dafa sew dëgg la mm-hmm. ah nit ki mënta bañ bëgg doomam nit ki mënta bañ bëgg soxna dëgg la ah, léegi loolu ñooñu noo leen di def ak borom <laughs> question la de hmm? hmm? léegi nag euh, lislaam dafa am dafa am mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. tàmbale am yoon am fu mu jëm tàmbale am yoon am fu mu nañu dafa am bunt am yoon ba pare am fu mu jëm maanaam bunt lislaam mooy baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mooy shahaada mooy tax nga tàbbi mooy tax nga tàbbi ci biir te booy xool baat boobu boo koy boo ciy liggéey mhm. dafay dàq lépp saxal yàlla yàllay képp mhm. moom mooy jëmal tawhid mhm. léegi nag ni nga koy waxee ci sa yoon boo ko waxee ba dugg yàlla du deñ ci di la natt boo xam loolu foo ci toll li nga waxoon ndax dëggu la ndax di nga ko jëfe ndax di ko jëfe moo tax yàlla di wax ci alxuraan da ngeen yaakaar ne da ngeen gëm naa rek ma bàyyi leen te dama leen natt ba xam seen ngëm fu mu toll seen ngëm toll dëgg la voilà mhm. kon képp kuy jullit rek mhm. boo gëmee yàlla rek mhm. yàlla dina la natt dina la natt natt yi nag mën na mën na wute mën na nekk ci sa doom mën na nekk ci sa alal mën na nekk ci sa jëmm mën na nekk ci lu ne mais amul képp kuy gëm yàlla rek di dugg ci diine yi lislaam te yàlla du la natt dëgg la dama mat. natt yooyu ci lañ lay nattee ba xam ndax kii. taw xiitam ndax dëggal na dëgg la parce que gars yi dañ koo firi sax ñu ne natt mooy natt rek. waaw dañ lay natt waaw dañ natt ba xam sa gëm fu mu toll. fu mu toll voilà. sa wàkkirlu ci yàlla. fu mu toll. Hmm, sa jébbalu ci yàlla fu mu toll ak kasa <laughs> dëgg la. a hmm. ah, nga jébbalu dafa nekk lu nga xamante ni. Hmm. du da ngay ñëw rek ne aslamtu nafsi li rabbil rek mu mat. dëgg la. parce que lii ñuy waxtaanee day duggaale ci loolu ndax Ibrahima nee nañ moo njëkk a jébbalu. moo a jébbalu te diggal na ko ay doomam itam. waaw bu leen dee mukk te jébbaluwu bu leen dee te faat leen faat te leen. te moom it lim leen digal yàllaa ko ko tànnal. dafa ne doomam ya yaa bunayya inna laa istafaa lakum diinan. mu yéen samay doom sa yàlla sama borom tànnal na leen diine. mu mel ni dañ koo laaj diine ja lu mu doon mu ne falaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun waaw ah, mooy bu leen faatu mukk te jébbalu leen seen bopp seen borom jébbalu leen seen bopp seen borom mu mel ni jébbalu sëñ Tuubaa sax bu nit naan musaa ñëw di jébbalu dafa mm. naan boo boo ñëwee jébbalu mm. boo ko waxee dégg nañ ko waaye boo ko jëfee nag ñu jàpp ko mooy nangul nañ la ko dëgg la léegi nag euh, Ibrahima mm-hmm. yàlla teg ko natt mu dund lu am toll ak quatre-vingts ans amul jabar amul amul amul amul doom doom mm-hmm. quatre-vingts ans amul tout tànk amul tout tànk jabar ji amul tout tànk mm-hmm. mu dem ci benn dëkk ñu may ko fa ab jaam jabar aaw bi daal di ne Ibrahima jël ko ñaareel mën na am yàlla defal leen ci nga wërsëgu doom mm-hmm. moo nekkoon saarata moo nekkoon saarata mm-hmm. eh, gis nga yàlla dogal mm-hmm. ñoom ñaar ñëpp ñu ëmb maanaam moo yëkkati jaamam biñ naan xaajara yëkkati ko jox ko Ibrahima waaw te moom waxtu bi mu koy jox fekkoon na boobu amul tout tànk amul tuut tànk yëkkati kii jox ko ko pour mën caa amee doom mu ciy gis boppam far yàlla may ko moom li ko jomb woon mooy mu amaale ca doom waaw ñoom ñaar ñëpp ñu ëmb xanaa loolu mooy yéene ju rafet daam solo de yaa ngi dëgg wax sax mhm. ba pare rax si dool li mhm. euh, fiiraa ngi dugg waaw kon di yàgg na ci kër mhm. foofu euh, soxna si aaw bi daal ne Ibrahima na jël ñaareel bi génnee ko kër gi génnee ko kër gi ba mu ko jénnee kër gi mm-hmm. yóbbu ko ba ci àll màkk bi mm-hmm. wàcc ko foofu mm-hmm. mais foofu yàlla dafa am lu mu fa jàngale parce que soxna si dafa laaj Ibrahima ne ko fii nga may bàyyi sa xelum bopp la wala ndigalu sunu borom la mu ne ko ndigalu sunu borom la mu ne ko borom bi doy na ma mu ko yàlla doy na ma wakkirlu wakkirlu parce que foofu ndaw si question yi ko discernement bi ko laaj tëgg la ndax sa xelu bopp la wala ndigal la wala ndigal la cëy hmm? hmm. mu ne ko ndigal la mu ne ko kon yàlla doy na ma hmm. kon foofu tamit dafa mel ni nattu bi dafa laalaale ndaw si waaw parce que waaw naan mbooleem ñeenti xaaju cant yi sax dañ koy séddale ah, ah, dégg nattu bi dafa laalaale ndaw si léegi ndaw si foofu matu jot Mm. mu matu foofu te kenn taxawu koo ku dul yàlla mm-hmm. ak matu nu mu méttee mm-hmm. tey yàlla mi mu ko bàyyiloon ba tey yàlla nga koy teg loxo ba yàlla nga koy teg loxo mm-hmm. ba ndaw si muccee mm. dafay soxla ndox pour mën a raxas lii waaw yees du am amul ndox muy daw ci benn montagne diggante ñaari montagne mooy Safa ak Marwa di wut ndox di wut ndox ba mu ko dawee juróom-ñaari yoon ci la ñëwee fekk xale bi fu mu tëddoon di wequ di wequ mhm. foofu yàlla bët fa teen mhm. bët ndox ndox mhm. ndox moomu ndaw si ñëw naan ko zam-zam zam ci hébreu la bokk mooy dalal dalal dal mu raxas ci ndaw si tout tànk bi yeeslu ci wëri la ko ay xeer commencé ci business waaw def ko fonds commerce ah, parce que Uh-huh. ndox fu mu am après day attirer ay vie day attirer ay vie fekk jéggi yi dañ daan romb foofu di dem seen caravane yi uh-huh. dafa def escale mm. maanaam di fa wàcc marchandise uh-huh. ay dund mu leen di jox ndox mu leen di jox ndox echange mu nekk échange parce que boobu loolu moo amoon parce que loolu moo amoon mm. léegi foofu la màkk commencé nekk léegi Ibrahima mm-hmm. ñëw mm-hmm. day dem ba ci yàgg mu ñëw di dem di ñëw di dem di ñëw mm-hmm. ba bés mm-hmm. xale bi di màgg mm-hmm. ba Ibrahima commencé ko bëgg ci xol bi bëggeel commencé dugg bëggeel commencé dugg fekk boobu moom dafa waxoon yàlla ni bëggoon na doom da bëgg goo xamante ne waxoon yàlla boo ma mayee doom dama koy faat ngir jaamooloo ko léegi yàlla rek di ko fàttali promesse boobu ah. heure bu tëddee guddi rek géntu gént loolu gént loolu yàlla ko fàttali mhm. parce que yàlla ñetti fànn lay waxee jàmm mhm. wala ñeent mhm. révélation mooy euh, yonent yi ñu yónni Jibril mu wax ak ñëw wala boog inspiration walla wala boog kiiraay den day dox sa diggante moom mooy ba mu doon wax ak dëgg la te ne sa borom bi wax ci biir safara si ak li ko wër. Mm-hmm. inna nii ana allah laa ilaha illa ana fax bu nii. <laughs> wala boog ci téere yi. Mm-hmm. dëgg la wala ci téere yi. Mm-hmm. yàlla ci ñeent yooyu lay waxee jaabam. day mel ni jaam bi fi maqaamam toll fa la yàlla di waxee. yàlla di waxee ak moom. dëgg la. Eh, Ibrahima yàlla di ko won loolu ci gént ba mu xam ni da ko war a def. mu dem Ibrahima tëbul tëb rek def ko tëbul tëb rek def ko dafa wax sox dafa waxtaan ak soxna si ne ko man de dama am lu ma nësaroon nii bu ma amee doom tam ma koy faat ngir jaamoo ko yàlla jaamoo ko yàlla dëgg la xam nga foofu ñu ngi lay jàngal sëy que mhm. borom kër daa war di waxtaan ak soxna war di diisoo di diisoo mhm. dëgg la te loolu la yàlla wax Muhammad sax wa shaa'iruhum fil amri bu mbir amatee na nga diisoo nit ñi ba noppi soo ko soxna si ne ko ah man doom ji dama koo jur rek dafa jaar ci man waaye moom ma ko mhm. jaar ci man waaye moom ma ko moom ma ko xam nga kooku am na benn bàkkaar bu mu moytu mhm. muy sama sama jéema moom dara te la mu ay ay saabu sama mhm. sama doom sama doom ci <laughs> dëgg la léegi Ibrahima Saarata wax loolu ni ko doom ji daa jaar ci man mais man moom ma ko yàllaa ko moom te boo jàngee alxuraan danay gis yàlla nit ñun dañoo nekk ci voyage voyage waaw parce que ñu ngi jóge ci aalamul awraax. aalamul arwaax. waaw mooy fi ruux yi yàlla ah, denc ruux yi magasin ruux yi. Mhm. après jaar ci sunu ndiggu baay. Mhm. Mhm. jóge sunu ndiggu baay ñëw sunu biiru ndey. te nekk nañ fa diir. te sunu ndey yëgu ko. dëgg la waaw. <laughs> dëgg la. ba mu jëlee ñetti weer. ci lay doog a seeti docteur. Mhm. doog a yëg ni yow du juddu nga bu yàgg. ndey yëgul bàyyi yëgul. Mhm. kon kan moom xale bi. kenn moom ko ko dul yàlla kay. yàlla kay moom moom jaamam. yàlla moom jaamam mos koo jaarale ci mbindeef rek. foofu sax li nga wax noonu dafa kéemaane lool parce que. Uh-huh. Eh, dañ naan. loolu day xaw a maari fawe sax wala day xaw a xaq xawe trop <laughs> mais dañ ne nit moom surtout góor góor moom daa mel ni konzul illaahi waaw daa mel ni coffre bi nga xamante ne ci la yàlla di programmer lépp denc magasin o mooy dencukaay bi dafa mel ni jigéen bi nag mhm. moom moo taxawee barab bi nga xamante ne lépp lu ñu stock génnee ci stock ba moom mooy société bi nga xamante ne wala entreprise bi nga xam ne fa lañ koy defaree transformer laboratoire laboratoire bi nga xam ne ci la ñuy transformer yëf yi ba mu jekk ñëw waajal ko ñëw teg ko adduna nag dafa mel ni marché la waaw tax ne nag loo fi jaay dul mbaax ak njub rek day lamb léegi foofu ñu ngi lay jégal ni am na yeneen réalité yoo xamante ni mhm. ngi xew ci yow te yëgoo ko dëgg la waaw ah. mhm. mhm. nga scientifiquement ki def euh, biologie dañu ne goutte de sperme bu nekk ndoxu màndew bu nekk am na lu tollook trois cent millions de sperme spermatozoïde waaw waaw ah. <laughs> dëgg la waaw ah, parce que benn sperme am na lu tollook ay junniy junni mm-hmm. wallax njaan yooyu moom mooy trois cent millions wallax njaan. waaw ci benn tokk spermatozoïde mm-hmm. après bu ñu duggee. Mm-hmm. am na lu ñuy daw. daw ba waaw ñuy ñuy xëccoo di daw di dem ci. waaw parce que ku jigéen bi tam mu ngeeg ay jaan yoo xam ne dañuy ŋaan. yaa ngi dégg wax kuñ ci luñ ci lekk mu tàbbi rek loolooy sabab. très bien scientifique bi bañ koo laajee. ñu ne loolee nga xam mooy ovule bi bu xasee ba jël ci benn wala ñaar wala mm. ñett ba tëju mm. luy xew ci biir mun a xamul ci dara waaw waaw effectivement effectivement parce que foofu alxuraan dana dépositoire bu sûr laa ko denc waa waaw xaraarin maqin defe naa noonu lu ko tuddee mooy dépositoire bu sûr bu wóor sax te scientifique ba ñu yegg see bu foofu boo xamee lu xasee ba lekk lu muy lekk mm. ba tëjuwaat leneen mënu ci dugg leneen mënatul dugg loolu mooy tax sax cycle menstruel lu jigéen mën a nekk. mën a parce que dañ naan lépp lu mu lekkul rek. day wëlbati ko nekk deret bu bon bu ko defee loolu mooy tuuru génn. mais bu xasee ba lekk moom. règle ya day dog. day dog te beneen mu ngi ci beneen fonction léegi. waaw même booy sëyaat sax dara du dugg. dara dootul dugg léegi mu ngi ci beneen fonction quoi. foofu nag la fay xew sa biir docteur yi neen xamuñ ci dara. xamuñ ci tous. billaahi lazi. dugg na ci kën mhm, dugg nañ ci mbiru suñu borom <laughs> dëgg la parce que doomu aadama kënsu la kënsu yàlla lim denc moom a bëri moo tax waa waxoon na ko de nee tax si bu am na ko jur mun saxiir fa fii ko huwa alamul akbar yaa ngi jàppee sa bopp benn microbe te yëgoon yaay monde bu mag a mag a mag bi waaw ak kasa foofu mhm. am na tam yeneen jàngale scientifique yoo xamante ni ñu si biir waaw mhm. mais dafa mel ni nag jëwriñ mhm. Euh, li ñu doon def nii lépp daanaka boo dee seet introduction la par rapport ak. Euh, tabaski na ba léegi ñu ngi ñëw ci tabaski. waaw parce que tey jii mm. bu fekkee ni tey jii léegi ndaw si. Mm. Ibrahima da ne ko. Mm. suma euh, yàlla daf may fàttali li ma ko digloon li ma ko nësaloon. la ma nësaloon. mu ne ko man doom ji moomu ma ko. kaa jaar ci man doom. Mm-hmm. te du du may dox sa diggante ak sa borom. Mm-hmm. est-ce que loolu dafa am solo. Mm-hmm. nga léeg-léeg góor yàlla. Mm. nga bëgg a sa borom. Mm. sa soxna bëgg a dox si diggante. sa diggante ak sa wax xale bi tamit. Mm-hmm. xale bi ne ko man bàyyi. Mm. mu ne ko daam mu ne ko mu ne xale bi man dama am lu mun ne soroon ak yàlla. sunu borom ne ko du ma amee doom dinaa la ko. xale bi ne ko man bàyyi binduma sama bopp te ba du man naay dox sa diggante ak sa borom waaw ah, moom kay la ko ne if alma tuumaruuna sa tajudu nii insha allah mina saabiriin di ma fekk ne difal li la sa borom digal di ma fekk ma bokk ca woy muñ ya mooy woy muñkat ya waaw ah. tamit loolu yëpp li ñu lay jàngal mooy ko ni soxna mën na dox diggante góor ak mm. boroomam mm-hmm. doom mën na dox diggante mm. góor ak boroomam foofu nag boo delluwaatee ci sóoratu nisaa yi ca bopp ba mhm. day mel ni yàlla day wax naan maa ngi leen bindee ci benn bakkan muy aadama ah, mhm. waaye ci aadama laa xasee soxnaam muy xawaa mhm. waaye ci xawaa laay génnee meññat te muy ay doom foofu ah. góor yàlla yi dañ naan nit ki à travers image am ci la ko yàlla di joxe soxna ah. mais à travers image soxnaam ci la ko yàlla di joxe doom dafa am ay jeexital dafa ay jeexital quoi ay jeexital ak ça dafa am ay jeexital léegi ba loolu amee seytaane dafa ñëw ci soxna si daal ne ko yow ndax wér nga mm-hmm. ëmb ak nu mu méttee mm. ak wës jur nu mu méttee mm. nga bàyyi Ibrahima di la wax waxi dofam yi. <laughs> naan day jàpp doom yi di ko rendi. di ko rendi di jaamoo yàlla. <laughs> kon xam nga góor yàlla yi sàkku seen borom yàgg nañ leen jiiñ ay dof. moom kay amul kenn kuy sóobu yoonu yàlla te doo gis lu la paq dinañ la jiiñ dof. Mhm. dinañ la ber. Mhm. de moom kay bari na ba ci taal Ibrahima déggoo ñu ne sànni woon nañ ko sax ci sawara. Mhm. te yow góor yàlla bi booy doxaat ala kulli xaal nañ la sànniwaat ci sawara. yaa ngi dégg wax ji. léegi ndaw si jël ko. parce que ci ndaw su la bëggoon jaare ngir tere Ibrahima pour influencer Ibrahima. pour influencer ko kon influenceur yàgg na ci kaw suuf ci lu wër ci lu wër. Mhm, mhm. <laughs> léegi euh, ndaw si sànni ko ña euh, sànni ko sànni ko sànni ko doj. Mhm. mooy juróom-ñaari xeer yi. juróom-ñaari xeer yi. ngir dàq ko. <coughs> léegi Ibrahima ba mu demee ba rey tut tànk bi. Mm. Ismaïla. Mm. fa la yàlla onee jibril te dégg na boobu dafa dafa dagg daggul mu waxaax paaka bi paaka bi ne ko aw ma ndigalu dagg waaw paaka ci ndigal lay daggee safara it ci ndigal lay lakke géej ci ndigal lay labale waaw mhm. mu ne ko mu waxax paaka bi gëdd ko mhm. léegi pa yàlla jox ndigal paaka bi joxaale jibril paaka bi joxaale Jibril ndigal ne ko bu ren nga xale bi yar dinaa la dégradé ci pays yàlla bi dëgg la cey góor yàlla yi ñu ngi wax naan bis boobu la Jibril masa firi laafam yëpp <laughs> te jëli gàtt ci àjjana ñoo remplacer lii ah moom kat li mu bëggoon yëpp mooy nekk ci fonction suñu borom te nee nañ ko lii bu manqué ñu sàbbi sawtut ci diwaanu malaaka yi waaw ok loo mën di nga ko def léegi léegi Jibril Jibril ñoo remplacer xale bi ak xar mhm. Ibrahima ba mu rendee yaakaar ne rend na mm. ndekete xar la rendi mm-hmm. te moom nit la tëral rendi fekk fa aw gàtt fekk fa aw gàtt gone gi taxaw ne la léegi moom mu sant yàlla mm-hmm. xale bi sant yàlla mm-hmm. soxna si soxna si sant yàlla jibril sant yàlla xar mi tamit sant yàlla ci jote gi mu jotee dër yonent ba kenn ah, yonent sax mbir a nga fa bu xóot a xóot ndax xaar ba nee nañ boo ko delluwaatee nga remonté ci histoire xal baa nga woon ca Haabil ak Aabil waaw ah, parce que ñoom ñaar mooy ñaari doomi aadama yi mooy mhm. yàlla dafa dogal aadama moom lu mu mës a jur rek mhm. day seex mhm. léegi nag pour yàlla mën a def àdduna bi mun a production mun a am da daan def seex bu juddoo ci biir bii di góor da ngay jël seex bu juddoo ci biir bee di jigéen yàlla dogal nag Haabil ak Aabil ñoom ku ci nekk nga war a dem jël sa seex bi morom kee mhm. gis ne moom seex bi mu nar a jël daa ñaaw mhm. léegi mu ne du ko jël moom day jël seex bi mu bokkal benn biir mhm. ñu tegal leen charte nag ne leen léegi pour loolu mën a nekk na ku nekk ci yéen day waajal am sarax comme kii da doon béy kii sàmmkatu gàtt la woon kee dem xool ci gàttan yi gàtt bu gën a baax ñëw indi teg kee dem seet ci ay gerte gerteeg yooyu mu doon béy yow yama mbaay ñëw teg nee nañ ñoom jamono boobu ku daan joxe sarax da nga daan ñëw ba ci benn bërëb teg ko fa boo ko fa tegee bu fekkee sarax bi nangu na doo ko fa fekkaat mhm. su dee sarax ba nanguwul nag boo ñëwee fa nga koy fekkaat mhm. mais biñ tegee xaaf bi teg euh, gerte gaa yooyu ñu bay bi sarax bi nangoo moom xar baa far dem nee nañ mm. xar boobu ñu yéege woon nag keroog bi ñuy rendi Ismaïla moom lañ ko jotee woon mooy xaru yaa ngi gis wax ji mais foofu li ci gën a garaaw nag bëggumaa dugg nag ci dimension ésotérique bi damaa bëgg bàyyi loolu ba ci kanam mooy booy seet dañ ne xar ba mu ngi bàyyi koo woon xarjana mm-hmm. waaw mu ngi bàyyi koo woon xarjana mm-hmm. te dañ nakat xar bi bu ñu ko rendoo dafay delluwaat aljana mm-hmm. loolu nag mbir la mu xóot boo xamante ne bu ñu ko waxtaan bi may insha allahu rabi nañ ci dugg waaye jëwriñ euh, d'après ni nga ko résumé nii ci tabaski bi am na solo lool parce que damay delluwaat tuuti rek fi ne tabaski gars yi booy seet dañ koo séddale ci ñaari xaaj parce que l'islam dafa bëri ay courant de pensée mhm. te yonent bi waxoon na ko ixtilaaf baynal ulama rahma mhm. bi am ci samay borom xam-xam mhm. du tàqalikoo du dara mais yërmande la ñeel xeet wi kii day gisee fii kii gisee fii mu mel ni gisi nii daa wuute waaye boo ko dee seet lépp benn la kon nag bu ko defee da ngay gis ne tabaski maanaam julli di dañ koo séddale ci ñaari xaaj ñii dañ ne sunna la boo xam ne mustahab la mooy sunna la boo xam ne feddaliwuñ ko du lu dëgër loo xam ne force da ko koo war a def ñee ne déedéet lii sunnatul muhaqqat la maanaam sunna suñu feddali la nga xamante ne boo ko mënee du la wàcc da ko war a jëf par force waaye li gën a dëgër nag ci borom xam-xam yi maanaam dañ ne sunnatul muhaqqat la maanaam mooy sunna soo xamante ne dañ koo feddaliwaat jàmm bi war koo jóg jëfee ko kon nag indil nga ñu maanaam euh, taarix gi fi mu tàmbalee fa Ibrahima jaar ak soxnaam Haajara ak Ismaayila ba mu juddoo rendi gaak lépp lu ko sabax mhm. waaye lépp boo ko tënkee day delluwaat ci lenn mooy diine fa mu tàmbalee ba fi mu taxaw ci kaw sacrifice lay doon kon dañ la bëgg a misaal ne maanaam diine jàmm bi mënu cee nekk te du dund ay sacrifice te boo waxee sacrifice di nga wax nattu te boo waxee nattu di nga wax muñ kon jëwriñ balaa ñëw dugg ci loolu est-ce que duñ taxaw tuuti ci baatu sacrifice par rapport ak nit ki ni mu war a sacrifier woo ci lislaam parce que Ibrahima bëgg gi mu bëggoon doomam moo tax yàlla ne ko sacrifier sa doom ndax man yàlla doo ma bëgg di bëgg keneen